salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com am nañu mbégte àndaat ak yéen euh, tey jii nag bu ngeen gisee fi ñu taxaw ñu nekk ci Darou Salaam Darou Salaam di suuf su sell tey nag li ñu fi indi bokk na ci màggal gi nga xam ne nag mooy màggalu Darou Salaam màggalu Darou Salaam bu ñu ko waxee euh, ku nekk xam na ne euh, ñibbi si Serigne Touba ci géej gi ci 1902 ak teral gi nga xam ne ganale gi nga xam ne maam Cheikh Anta Mbacke borom Darou Salaam borom dërëm ak ngërëm doon na ko ko ganale ki nga xam ne nag moo di Serigne Touba Xaadimu Rasul mu nekk ngan am solo gu yaatu goo xam ne yaakaar naa histoire wax na ci ku nekk wax na ci euh, ci li nga xam ne nag moo di euh, ngan googee nga xam ne maam Cheikh Anta Mbacke moo ko doon ganale ki nga xam ne nag moo di euh, Cheikh Mat Bamba Serigne Touba loola tax bokkute ci màggalub Daaru Salaam at mu jot koy woote màggal gi jullit yi nag di bàyyeekoo fu nekk ngir ñëw fekk si li nga xam ne moo di màggaluk Daaru Salaam tey nag ñu ñëw ñun itam ngir fekkee ci li nga xam ne nag moo di màggal gi gis ngeen bi ñu xëyee jot nañoo dem ci kër kilifa yi nga xam ne nag ñoo nekkee fi dem nañu ci kër xalif bi waaye ku wax Daaru Salaam xam ne euh, Daaru Salaam suuf la bërëb la boo xam ne itam euh, bërëb bu barkeel la ndaxte euh, Serigne Touba fonk goo xam ne fonkoon na ko fi nga xam ne nag moom di Daaru Salaam Daaru Salaam ko ko tudd tudd tamit maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Babul Mouridina ki nga xam ne nag moom mooy buntu yoon wi kon nag mu nekk bërëb bu am solo boo xam ne ci murid yi ba tax na at mu jot nit ñi fu nekk lañuy ñuy bàyyeekoo rek ngir ñëw fekkee ji li nga xam ne nag moo di màggalu Daaru Salaam fi ñu taxaw nii nag ñi ngi taxaw ñi ngi taxaw ci wetu fi nga xam ne nag moom moo di musée wu Cheikh Anta Mbacke borom euh, Daaru euh, waaye itam ziar yi di tàmbali ni ngeen ko gisee boobu ba léegi rek euh, ci jumaa ji ak bépp bërëb boo xam ne rek dañu fay sàkku ñaan nu ma leen ko waxee sànq léegi bëri na ay kilifa yoo xam ne fii ci Daaru Salaam la ñu ganee àdduna gis nañ fi lal bi nga xam ne fi la Serigne Fallou Mbacke borom Ndindeek Sam mi nga xam ne fi la nekkoon waaye tamit gis ngeen lal bi nga xam ne Serigne Touba bi nga xam ne nag jógee na ci géej gi ganale gi ko doon ganale ci lal bi nga xam ne toogoon na fi looloo tax nag tey 24 actu fas yéene ànd ak yéen ngir dara bañ leen ump ci màggal gi nga xam ne nag moom moo di màggalu Daaru Salaam édition 2019 ñu fas yéene cee ànd ak waaye nag euh, fas yéene ànd ci lépp xam ne nag jëm na ci ziar yi fii am ak lépp loo xam ne rek nar naa soqe ko ci màggal gi dara du leen ci ump ngeen ci ànd ak 24 actu. maam Cheikh Anta Mbacke buñ ma ci woo dinaa ci wuyu ndax xam nga lu tax ma sawar cee wuyu man waa Kër Sëñ Touba laa ba jeex ñi jiital Cheikh Mamadou nga xamante ni dama koy bëgg rek ba keroog may dugg ci biir suuf si. maam Cheikh Anta Mbacke borom dërëm a ngërëm ak màggalam du mën a tuuti ndax maam Cheikh Anta Mbacke tuuti am ku bokk ak Serigne Touba sa dara du tuuti Serigne Touba ku ko bëgg sax sa dara tuuti sàkkantuma ku bokk ak moom màggal gi neex na ñam yi bari na ndox yi bari na kanat yi bari na nit ñi am na nañu be fonk na màggal gi ñëpp ngi togg di yekk di di joxe. génn seen i néeg wàcc seen i lal a ah, boole kook ak taalu bi gu mat sëkk waaw kon nag maa ngi ñaan yàlla képp koo xam ne yaa ngi fi teew ci màggal gii te Serigne Touba tax laa jóg ah nga dib jullit di taalu bi loo fi fas yàlla na ko yàlla yeggale te ñu teewoo ko ay déwén nag ku fi andi wopp yàlla na ko yàlla wéral ku fi andi njàqare yàlla na ko yàlla seral te yàlla boole xol yi te yéenante jàmm te képp koo xamante ne am nga lenn looy tàggat yal na la ko yàlla fajal ci kàttanu maam borom maam Cheikh Anta Mbacke ci barkat maam borom Touba lépp nee na gaañu. borom day borom dërëm ak ngërëm ndax maam si Anta doonu woon jënd benn doonu woon jënd ñaar sëñ maam si Anta par douzaine la doon jënd ci ak lu mu mënti doon kon nag ku bëgg a yokk nga bëgg a bërile wala nga bëgg a barkeel la ñëwal fii ci dëkkam